demee ba ca mañ ngàcc wa mañ ngàcc du fenn du nettali def leen bu leen neex waaye bu mu doon bopp fas wi de bopp fas wi ku ko def ci ambaloon yaa de yaa yokku suukar de yaa yokku saabu bopp fas ku ko leen ko def bu leen ko def ci ambaloon bi ambaloon bi ku leen jox xaalis lekk leen waaye ndax am mañ ngàcce du fenn du nettali bu ngeen demee ba ca mañ ngàcc wa def leen bu leen neex waaye bu doon bopp fas wi bopp fas bu leen ko def ci moo tax nag xam nga soo falee njiit muy def fi dof yow nga nekk citoyen toog sa kër naan yàlla baax na yàlla baax na moo lay indil yokku ciment moo lay indil yokk ceeb moo lay indil yokku kii il faut que nit ñi génn xeex c'est-à-dire que il faut que nit ñi comprendre que ne action gouvernementale benn bu ne ci sa sama ci sama kaw la jëm su jëmul ci sama kaw ci sama doom la jëm parce que am na loo xam ne ni man sama doom moo koy soxla dans 10 ans man soxla ko xam nga xale yaa ngi nii di jàng am ci mbedd yi Il y a plus de 70 000 jeunes bacheliers sacrifiés. ont sacrifié ñi ñu école privée yu fayda ñi ñu entre le ciel et la terre ñu tudde ko virtuel mais doomu mon man su ma jaaroon foofu tey fekk fii ba may laaj man dama jaar euh, école normale ñu ñu école bu normal ma jàng ci université bu normale fi ba am xam-xam bu normal mais ils ma mais dafa am loo xam ne nii dafa jaaduwul maanaam fañ war a def alal ji lañ ko deful wax ma luy teer 30 kilomètres nga bëgg cee def 1000 milliards ni ñu waxante dëgg te yow benn université 90 milliards la doon laaj wala 100 milliards hôpital Touba 40 milliards la doon laaj dañoo fooye xaalisu réew mi fooye alalu réew mi toll nag foo xam ne nii tey demu mënutuñoo dem mënutuñoo dikk ba pare nit ñi jëppi leen parce que yow nit ñi dañoo amut ñoom lu ñu teg ci loxo nit ñi lan lañ defal nit ñi lan lañ fi def do amul ben citoyen sénégal bu lay wax ne man de sant na gërëm na parce que li def nañ ko à part ñu naan le PUDC dem na ci Allah ba def na ben ben rang-rang wala ben nangam sangam ça du fa ndaw ndaw ndaw ba nga xam impact bi mu wara am sax ci ci ci jeexatalu nit ki amuñu ko mais sénégal plus de 40 amuñu courant mënu ñu jël 1000 milliards yooyu dimbale ñu nit ñi am ndax courant da bok ci sécurité doomu adama bref autosuffisance alimentaire il y a trop de problèmes dans ce pays là ñu tégg lepp dem di def li leen neex li leen neex nak tey mooy moo ñu indil problème yi see domage yow yaay fay ak man ak keneen ak keneen ndax ñu ñooy jënd ciment ñun ñooy jënd carburant ñu ñooy jënd euh, li ñuy jaay te yokk nañ ko mu te mënoo ci dara. moonte nag malgré jafe-jafe yi nga joxoon baaraamu tuuma ci xayma suñu koom mu ngi yokk mooy.